الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا له اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله سنبوك إمام عبد العزيز Aziz Ndiaye bu jàkk 3 Modèle cité lundi 19 août 2019 di waxtaan ak yéen mu numéro 83 ci sunu jotaay bi passé gisoon nañ mbokk euh, commerce yan condition ñooy daje pour ñu mën njënd mi ak njaay mi wér na condition de validité ñu annoncé woon ne tey ci deuxième partie bi dinañu waxtaanee tere yi nga xam ne charia indi na ko ci wàllu njënd ak jaay yi nga xam ne dafa daganul ci njaay ci lislaam soo xoolee tere yi yonent bi sallallahu alayhi wa indi dinañ gis ne yonent bi li muy aaye ci jënd ak jaay mooy lépp loo xam ne rekk dafay lor kiy jaay walla muy lor kiy jënd lépp loo xam ne day indi loraange lislaam daf koy dàq daf koy tere ci biir commerce lépp loo xam ne dafay sooke nooneel l'islam daf koy tere lépp loo xam ne ci commerce dafay jur réeroo ci askan wi indi réeroo ci pénc mi l'islam daf koy tere ak lépp loo xam ne rek dafay xajamal sunu pas-pasu sunu pas-pasu lislaam sunu pas-pasu jullit lépp lu koy xajamal lépp lu koy saltel lislaam daf koy dàq ci kaw loolu dina indi tey fukki tere yoo xam ne war nañ ko bàyyi xel lool mbokk yi tere bi njëkk mooy ne jullit bi tere nañ ko muy jaay marchandise boo xam ne daf ko jënd rek wante jotuñ ko ko livré tere nañ ko mu jaay ko maanaam di jaay marchandise boo xam ne danga ko jënd livré guñ la ko nga koy jaayaat loolu l'islam tere nañu ko jullit bi amu ci droit ñaareel bi jullit bi tere nañ ko mu ñëw ci koo xam ne dafa jënd marchandise mu ne ko li ñu la ko jaayee dafa cher demal delloo ko nga ñëw ma jaay la ko moyen cher l'islam dafa ñuy aaye loolu l'islam bëggul lu dañ ñu ko tere demal delloo sa marchandise bii nga jënd yaa ngi ko jëndee 5000 dama nga delloo ko soo ñëwee man naa la ko jaayee 3000 kooku mbokk yi l'islam daf koy tere ñu bàyyi ko xel. delloo sa marchandise bi ñëw ci man ma jaay la ko mooy cher mbokk yi loolu nañ ko bàyyi xel l'islam daf koy tere dagganul ci jullit ñetteel bi ñetteelu tere bi mooy ne jullit bi amul droit ci kaw loo xam ne sax du dëgg naan marchandise bi nangam la ma dikkee ci njëkk fekk loolu sax du dëgg qui dang koy wax pour que ki sa marchandise bi mën ko jënd mu nekk lo ah bëri na ci penc mi lol sax ñu oyofal ko lol sax waye l'islam daf bañ di wax naan sa marchandise bi mille francs la ma dikkee fekk dikkee la loolu yow da nga koy wax rek pour mën a jaay sa marchandise nangam la ma dikkee cent francs laa ci am nangam la ma dikkee deux cent laa ci am fekk yow dikkee wala loolu da koy wax rek pour indi ay argument pour mun a jaay sa marchandise l'islam nee na loolu loolu daganul loolu dafa xaraam kenn duy inventé di wax naan sa marchandise bi nangam la la dikkee fekk dikkeewu la loolu li ngay wax dafa nekk ci gannaaw dëgg da nga koy wax rek yow pour rek mun jaay sa marchandise loolu dafa haram ñeenteel bi xaraam na ci jullit tere nañ ko muy waat pour jaay marchandise di wat di waat yonent bi sallallahu ne di jaay marchandise dafa am ay risque risque bi mooy ne loolu waat yooyu ngay waat pour jaay sa marchandise dafay day wàññi barki barke bénéfice di nga jaay sa marchandise am ci bénéfice bu bu bu bu takku sax waaye bénéfice ba du am du la amal daanaka njëriñ du barkeel ak lu muy bare bare yépp walla boog sax bénéfice bi mën naa dem sax ba seey faf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na loolu li koy indi mooy di waat bari li ngay waat pour jaay sa marchandise di jaay di waat di waat foo toll yaa ngi waat rek di waat rek pour pour mun a pour mun a jaay sa marchandise yonent bi neen loolu dafay indi day wàññi barke bénéfice day wàññi barke bénéfice day mun na dem sax ba bénéfice bi sey mbokk yi ñu bàyyi ci xel bëri na ci jamono lool waat ci waat ci commerce di waat ci biir commerce te yonent bi daf ko tere. même su nekkee ci la ngay waat sa dëgg la mbokk yi même su nekkee ne ngay waat sa dëgg la yonent bi waat bi ci boppam la tere waat bi ci boppam moom la tere même su nekkee ne yow li tax ngay waat dëgg la yonent bi waat la la tere waat waat kenn duy jaay di ci boole ay waat jaayal rek lu ko may sa sa bénéfice barke ba dina wàññeeku lu ko may sa bénéfice mun na dem ba sëy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax juróomeel bi mbokk yi mooy ne gisoon nañ ci ponk yi ne daganul ci jullit bi muy jaay loo xam ne dafa haram loolu moom gisoon nañ ko ponk la ci li ci ci chari ci ci ci ci charia d'ailleurs ponk la ci commerce du waroo sooy jaay na fekk li ngay jaay dafa dagan wante tamit su nekkee da ngay jaay loo xam ne dagan na na fekk ne ña ngi koy jaay ñoom lañ koy doyee na dagan itamit jullit bi amul je amul droit jaay loo xam ne daggan na waaye kam koy jaay lam koy doyee daganul amuloo droit yow dangay ngay béy raisin da ngay béy raisin danga am tollu raisin daganul ci yow jullit bi nga jël raisin bi di ko jaay ñoo xam ne ñoom sàngara lañ koy defaree amuloo ci droit raisin daggan na jaay raisin daggan na waaye tamit ah na fekk ne ña ngi koy jaay ñoom lañ koy doyee daggan na ña ngi koy jaay dañ koy jaayaat wala dañ koy def confiture wala ñoo xam wante nag ña ngi koy jaay su nekkee dañ koy def sàngara kooku moom jaay ba daganul loolu hadis la sax mbokk yi hadis la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne yow danga dangay da ngay béy raisin gu witti say raisin witti leen ah dajale leen pour jaay leen juif yi yawut yi ak chrétien yi nasaraan yi ndax lan pour ñoom ñu defaree ko sàngara yonent bi nee na képp ku def loolu yaa ngi yaa ngi sa bopp safara nee na képp koo xam ne bépp jullit buy béy raisin raisin ba njor mu wittu ko dajale ko di ko jaay yawut yi ak nasaraan te xam xëll na ñooñu ñoom deewuñ ko dara lu may defar sàngara yonent bi nee kuy def yow yaa ngi yaa ngi yaa ngi xalal sa bopp yoonu yoon wi lay dugal safara juróom benneelu tere bi mooy ne jullit bi amul droit marchandise a ngi nii mu jaay ko leble ko kii ñoo di ko jënd ci yow da ko ko lebal da ko lebal marchandise maa ngi di jaay laa ne ko ah da nga may fay fileeg weer wala da may fay fileeg fileeg fukki fan ak juróom fileeg fukki fan yéen a xam ci li ngeen d'accord ka nga jaay marchandise bi moom dafa soxla xaalis ndekk te yow moom dafa soxla xaalis moom sax du marchandise bi la soxla waaye waaye xaalis la soxla ba nga ko jaayee marchandise bi ci crédit lebal ko ko moom mu dem di ut kum ko jaay au comptant pour am xaalis te loolu day fekk toujours ne prix ba mu koy jaayee day nekk prix bu yées toujours prix ba mu ko jëndee yow yow ma ko ko jaayee nga ne ah waaw man de mun naa ko jëndaat mun naa ko jëndaat jëndaat jaay naa la ko deux cent mille crédit fii fukki fan ak juróom nga may fay wala fii léegi nga fay ma deux cent mille mais soo bëggee léegi mun naa ko jëndaat ci yow cent cinquante mille loolu mooy bukki mooy bukki. kooku l'islam daf koy tere sharia daf koy tere julit bi amatu droit def ko loolu ku koy def yaa ngi def riba kooku dañ ko assimiler ak riba maanaam bukki ñu bàyyi ñu bàyyi ci xel parce que mbokk yi loolu dafa am ci suñu pénc dafa am ci suñu pénc julit du def bukki juróom ñaareelu tere bi mooy ne bi amul droit def du def li détention de stock mooy lan mooy yaa ngi marchandise marchandise mi moo xam ceeb la moo xam la xam farine la waaye daal marchandise bi am nga dégg-dégg ne am nga information am nga dégg-dégg ne ah ñaari dina fii léegi ñaari weer ceeb dina manqué bitim réew am na lu fa xew ba tax ne bato ceeb yi ah, du ñëw ni ñu waroon a ñëwee walla bitim réew am na lu fa xew ba nga xam ne ah bato blé yi du ñëw ni ñu waroon a ñëwee masalan kon fii ñaari weer ah marchandise dina jafe su ko defee yow li nga ci am ci stock nga téye ko bañ koo jaay di xaar marchandise bi manqué marchandise bi jafe nga génnee ko pour am ci ay prix yu mag loolu loolu mbokk yi dafa xaraam jullit du ko def l'islam daf koy tere mooy rétention de stock téye sa marchandise bañ ko jaay di xaar ba mu jafe nga génne ko pour mën a yokk njëg yi loolu mu amul benn yërmande amul benn yërmande amul benn yërmande moo tax yu moo tax jullit du def loolu loolu moo tax charia tere ko juróom-ñetteel bi mbokk yi juróom-ñetteelu tere bi mooy yonent bi sa jamonoom daan na ay jullit yi nga xam ne ñu ngi nekk réewu taax jullit yi nekkoon na Medina doon na leen tere ne bu leen di dogale koo gi waa kaw gi di ñëw Medina pour jaay si seen marchandise wala pour di jënd si seen marchandise bu leen di dogale bu leen di dogale pour naan leen it ma jaayal leen wala leen nga bugg xaaral ma utal la ko yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa daf ko doon tere lu parce que toujours day indi yokk-yokk toujours dafay indi yokk marchandise toujours ñi da ngi ni jógee ca kaw li dafay jaay marchandise am moom fukk la koy jaaye nga dogaale ko ca ne ko il ma jaayee la ko gis naa gis naa gis naa ko ko bëgg parce que waa koogi ñoom kooga lañ jóge maanaam xamuñ mu jox la ko yoo ko dem jaay jugo fukk ak juróom wala wala wala fukk ak juróom benn xam nga yokk marchandise ñëw na yoo nga jël juróom yi juróom benn yi daf ko sa poche jox ko fukkam mais que jënd marchandise bi moom fay na loo xam ne ci yoon war loon fay lu toll noonu wala nga ne ko looy jënd loo bugg mu ne la nangam nga ñëw ne ko waa ah, gis naa xaram utal la xaaral ñëw ne gis naa am naa mu ngi nii ñaar fukk lay jar fekk yow yaa ngi ko jëndee woon ah fukk ak juróom nga teg ci dem jaayee ko ko lu ëpp kon. yonent bi moo taxoon jamonoom daf ko tere woon daf ne na ngeen bàyyi nit ñi ñuy jënd ci seen biir directement amul intermédiaire yonent bi dafa doon aay te xam nga mbokk yi li may wax ni yéen toujours toujours ñu teg ci suñu bët ci marché léegi ngay dem marché am ko dagal dajalee yow ne la loo bëgg nangam toogal xaaral ma ñëw loolu bëri na toogal xaaral ma ñëw. yow yow kay ne la bàyyi nga dem rek wala mu wax la sax bërëb sàngam daf koy am su nekkee daf la bëgg a dimbale rek yow soo demee jënd soo ko mënee nga neexal ko waaye dañ lay wax toogal fii ma ñëw loolu ko yónne bi daf ko doon aaye yónne bi daf waa dëkk ba waa taax yi yónne bi daf leen doon aaye bu leen di dogalee waa kaw gi su ñuy ñëw di jaay si wala ñuy jënd si lu wér yónne bi daf ko doon aaye kon ñu bàyyi ci xel tamit loolu mbokk yi te façon bii nii façon bii nii bëri na ci penc mi bëri na ci lool lool lool lool mbokk yi li yoneen li li lislaam li l'islam aaye ci commerce te mu bëri ci penc mi dafa bare dafa bare lool moo tax tomb bii wax dëgg yàlla dafa ba dafay dafa am solo ñu bàyyi ci xel audio bii nii audio 83 bii dafa laaj trop ñu bàyyi ci xel ndaxte daanaka mun mun naa xam li ñuy tere ci commerce yëpp moom mu ngi mu ne xus ci ci ci ci mi bare fi lool bare fi lool juróom-benneelu tere bi mooy ne jullit bi ci wàllu commerce warul njublan ci wàllu natt ak ci wàllu natt ak peese jullit bi warul mel ni njublan yi nga xam ne ñoom su suñuy nattulu walla ñuy peeselu dañ lay taxaw rap, pour nga nattal leen bu mot pesel len pesel bu mot wante nag ñoom su nekkee ñoom ñoo pesel peeseel wala di la nattal da ngay gis dinañ fexe nuñ la njublangee fexe nuñ la sàcce gis nga li mbokk yi alxuraan la li ma wax nii waxu borom bi la àlla taala ci suratul surat 83 aaya un deux ak trois ñetti aay yu njëkk yi suratul mutaffifin ci la borom bi allah subhanahu wa taala di wax أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للمتففين الذين إذا اكتالوا على ناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون مولولو borom bi nee na njublang ñooñu di njublang ñoom ñoom ñoom loolu moom seen musiba la ñoom sooy peesalu wala ngay nattalu peesal ma lu mot nattal ma lu mot waaye su nekkee ne yow ne yaay peeseel nit wala di koy nattal nga gis ñoo nga koy nga koy njublang di ko sàcc jullit du def loolu kon jullit jullit du njublang suy peese walla muy natt fukkeelu terrain bi dañu des ak alxuraan ba léegi mbokk yi dañu des ak alxuraan ba léegi ndaxte ci alxuraan borom bi allah subhanahu ci suratul jumaa suratul jumaa mooy surat 62 aaya 9 borom bi allah subhanahu mu ñuy wax auzu billahi min asheytaani rajim yaa ayuha allazina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع borom bi mu ne bésu àjjuma bésu àjjuma Mom, suñu xasee ba noddu ba imam bi toog ci minbar bi foofu moom lépp luy jënd ak jaay dafa war a lépp luy jënd ak jaay dafa war a dakk ba su àjjuma suñ xase ba noddu fekk ni imaam bi mu ngi ca mën bar ba foofu moom jaay ak jënd daga natu fa mu doon fukkeelu tere bi kon mbokk yi euh, loolu mo doon tere yi nga xam ne seppi woon nañ ko ci wàllu commerce nekk yoo teel yoo xam ne ma ko waxee woon ca njëlbeen dañ ci war a bal bàyyi xel loolu ndax ay jullit lañ lépp lu charia tere dañ ci war a bàyyi xel waaye bàyyi xel bi surtout surtout parce que dafa bari ci jamono dafa bari ci penc bi kon yàlla ñu yàlla mais furuxaan mais ñu discernement ñu mun a ràññee yàlla nañu yàlla xiir ci ñuy bàyyi tere borom bi allah subhanahu wa taala mu xiir ñu ci ba pare yombalal ñu ko subhanaka allahuma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim